ay ca final poids léger baa ngi noonu diggante Moussa Ndiaye bu Njongoon ak Gouy Gui bu Gagnick fii ci terrain Gaal gi le 14 juillet 2024 góorgóorlu production moo fi woote woon doomu Gagnick doomu Gagnick ak doomu Njongoon Moussa Ndiaye Gouy Gui Gouy Gui moo jàkkaarloog ñun Moussa Ndiaye moo ñëwoon ginnaaw ñaari xale yu mun bëre lañ ginnaaw bi am diggante Mamadou Moustapha ak Babou Sarr Thiam bi mu jeexee arbitre bi jox Babou Sarr Thiam victoire Modou Mamadou Moustapha Sagne déposé recours ci image yi ñu gis laata ñuy yegg timis bureau timis wu Babou Sarr Thiam laal na suuf victoire de Mamadou Diambo merci donc final Aliou Mamadou Diambo Ah, babu eskana na kenale. Moussa Ndiaye daan na guuj bi gañit Moussa Ndiaye jël na poids léger ya dernier lambu Dakar yow yaa jël poids ci kaw guuj bi gañit doomu ñongoon